am naa membre bu baax de très correct. Mm-hmm. gëm naa ni benn kàddu gu ñaaw du bàyyi ko si moom ñëw si man. Mm-hmm. te man tamit fas yéene ma dans le reste de ma carrière yëkkati benn kàddu gu ñaaw jëmale ko si membre yi yaa ngi may dégg baax. Mm-hmm. ànd nag wax dëgg yàlla neexoon na parce que ça lui a permis d'être mais man nag bu leen fàtte ne maa Macky ñoo àndoon élection présidentielle bu mujj bee maa Macky Sall laa rejoindre. am na ñu naan sa décision rejoindre bon pas rejoindre euh, soutenir le candidat de Macky sàll dafa am waxtaan bu ko jiitu sa diggante ak ku ci mel ni Amadou Ba am na sax ñuy wax ay affaires yoo xam ne nañu proposé nañ la ko wala jox nañ la ko moo waral sa sa sa féete boobu. dama bëgg ma leer rek man waa Benno Bokk Yaakaar laa musuma jóge foofu. Mhm. tànk boobu musuma ko teggi falaa far démb falaa far tey. coalition locale bu ñu construire doon à Kolda muy Ndiadène si la soog ànd ak Mamboy Diaw. donc trahison amu ci jamono ji seen. lan mooy trahison parce que am ñu koy wax. lan mooy trahison j'ai lu des des des des des posts sur Facebook trahison suppose que trahison suppose que Fabouly Gaye ànd ak Macky Sall bàyyi na Macky Sall dem ànd ak Ousmane ak Astafurlah dem ànd ak Khalifa Sall. wala ànd ak Ousmane Sonko. man PDS bu ma jógee. Mhm. ñoo APR bu ma naree jógee APR damay dellu PDS. je ne suis pas prêt à continuer cette marche la ça ne ça ça ça ne m'honore pas. mais mais tey jii dafa am loo xam ne Faboli euh, da nga nekk doomu Kolda. Ah. nekk un digne fils de la région. yaa ngi koy wax bi ngay politique di nekk président conseil régional ñu bëri xamuñu leen. Ah. nga jege aussi mouvement associatif bi trop. Ah. Euh, jege le peuple Mame aussi nekk doomu Kolda ngeen am lu ngeen bokk am lu ngeen di représenté euh, tey jii à l'heure du choix est-ce que la cœur warul woon penché wu un nga xam ne moom nga bokkal. localité waaw waaw waaw fa ngeen en politique man je pas des émotions je suis rationnel gis nga bu may ànd ak membre yi dama gëm ne c'est le meilleur candidat ma ànd ak moom. parmi ñi fa nekkoon. ma ànd ak moom nëbbu ko wax naa ko fii waxaat ko fi mhm. il a été très defaan nag fu nekk porte naa sa candidature fu nekk yàlla sutural ñu falu na lii question présidentielle la. Mhm. man je n'y vais pas dans l'émotion. deew ma aussi dans une candidature parce que ñoo bokk dëkk. damay ànd ak candidature parce que dama jàpp ne le candidat la peut servir beaucoup plus le Sénégal. Mm-hmm. te kooku nag mooy ki nga xamante ne suñu mentor kooku la choisir muy Macky Sall. Mm-hmm. damay bañ ñuy juum sur les notions et sur les mots clés et sur les mots. parce que da gis ñu ne la faabul ni poulain membre man je suis pas un poulain de membre rus naa nekk poulain kenn. mais tey si le président Macky Sall choisi quelqu'un naa nekk man poulain wu yi rus naa nekk poulain wu kenn. Mame Boye c'est mon oncle je le respecte porte dans moo estime et dans mon cœur et je sais qu'il me le rend mm -hmm. il m'a rendu énormément service j'ai essayé dans la limite du possible de le rendre góor mhm. góorgóorlu naa ba mu falu mais est-ce que waxtaan ngeen waaw loolu laa ma ne xam nga Mame Boye Benno la bokk parce que li ngeen seq yëpp fi ngeen jaar Mame Boye waxtaan ngeen Mame Boye Benno la bokk man Benno la bokk man je préfère ngeen considérer lu fi nekk lu fi nekk nag mooy faabuli militant Macky Sall la mhm. Macky Sall choisir na candidat candidat boobu lay topp Mame Boye c'est kenn mënul génne loolu doo dégg ma koy. Ah, saa li tax ma ne ndax waxtaan ngeen mooy. Euh, ëllëg kenn xamul parce que Mame Boye mën na mën nañu wax dans les rangs. c'est bien possible damay ñaan mooy hmm. dégg. oui na dellu si biir këram. voilà parce que xam nga enjeux yi c'est des enjeux extrêmement importants. ça c'est man nag respecté naa. sa volonté d'aller aux élections mais je pense que la maison Benno Bokk Yaakaar c'est notre maison à nous tous mm-hmm. nous avons le devoir de préserver cette maison nous avons le devoir d'accorder à Macky Sall d'autres et d'autres victoires c'est pourquoi man j'invite mon oncle Mamboy à revenir dans la famille on continue le combat ensemble